asalaamaaleykum askan buy seetaan QTV jamono ji ak yéen ñi nga xam ne yéen a baaxoo di ànd ak ñun si Q radio muy 103 point 3 kàddu gi bay ko fii si bi tundi Kereba Avenue nekk fii si biir réew yi Gambia yu fas indi indi leen xibaar yi àllarba ji ngeen di si ànd ak Biram es Diop. lu gën a fes na tey si biir xibaar yi muy ñu dëkkee foofu noonu si biir Banjul ñoom demoon neen démba di talaata nemmeeku ku nga xam ne moo nekk njiiti réew mi di président Adama Barrow si makkanam bu nekk foofu noonu si biir Banjul muy State House pour jéem a wane waat bu baax a baax mbégte bu nga xam ne fas nañ ene pour gis ne dañ ko war a mën a continuer ak moom gannaaw ba loolu weesoo ba léegi buntu liggéeykaay amee wàllum dépense ak koppari réewi Gambia ñu xamee ko si Ministry of Finance and Economic Affairs ñoom nag woote woon nag taskari xibaar pour xamal leen bu baax a baax lan moo nekkaale mooy ab yenn jéego bu nga xam ne dafaale woon ne ko pour jëm a gastu bu baax a mu ñi nga xam ne ñoo nekk di liggéey si wàllum nguur gi gannaaw bu loolu weesoo ba léegi muy Amath Nké Ba nekk jur mu amee wàllum demandiku tubaab bi ak tam wàllum aada ak fii si biir réewi Gambia moo dali fesal ne mu ne nguuru réewi Gambia ñoom naka préparé pour ubbi nag ab benn buntu bu ñu gën a xamee si National Tourism and Culture Fund muy ab béréb nga xam ne naka koppar na moom la moo baaxoo di dimbale képp ku nga xam ne moo nekk wéykat mbaa sax nga war a fas ne pour gis ne dangaa yëngu si wàllum bind gannaaw bu loo weesoo ba léegi mooy ñi nga xam ne ñoo war a toll si juróom-ñetti nit ñoom ne ñu jàppoon leen ñoom si boppam ñoo jiite woon muy mbootaay bi ñu gën a xamee si Three Years Jotna Movement ñoom nag ba léegi naka muy néegi àttekaay bi nag nangul pour ñu jox leen lu gën a xamee si béel ñu war a dem ñibbi ñoom seen ab kër si nekkee lu waa dem na ba sant leen ñu war a dem ma naka dénk yooyu façon yi àttee kon askan bi yii nag yeneen xibaar incha allahu rabi si lu bañ a yàgga ñu indi leen si ay yaatal gannaaw bu njëkkoo yéen si bopp xibaar yi ñu fas yéene indi si ab yaatal te nag tey jii fu ñu ko dalee commencé mooy démb di talaata ñu dëkkee foofu noonu si biir Banjul demoon ne nemmeeku nga xam ne moo nekk njiiti réew mi di His Excellency di président Adama Barrow jëm koo rafetlu baax a baax liggéey bu nga xam ne jamono ji nii ñëwaat na pour jëm koo liggéey muy capitale Gambie xamee ko si biir Banjul lool nag taxoon na ba ñu bëri demoon nañ pour gis ne day jëm a yeesalaat seen ànd ak jàppale bu nga xam ne fas nañ ko yéene pour ko mën a jàppale moom mi di président Adama Barrow ak parti mu gën a xamee si National People's Party mu nekk NPP. bokk na si ñi xam ne tamit demoon nañ fa mooy ku nga xam ne moo nekk Alaaji Diop moom nga xam ne si boppam nag moom yëkkati woon ak kàddu nag jëmale ko si ku nga xam ne moo nekk njiiti réew mi ak ku nga xam ne moo nekk Mohamed Ndaw ak Fatoumata Touma Ndiaye ñoom ñaar nag ñoo toogal muy Banjul South ak Banjul Central si pencum réewi Gambia ñoom ñi yëpp nag gannaaw bi nga xam ne dem ne ànd ak limbu sakkan yëkkati woon nañ kàddu yi nga xam ne moom ne fa dal di rusal te gannaaw ba loolu weesoo tam ànd neen ak muy mbootaay ndaw yi ak tam mbootaayu jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk foofu noonu si biir Banjul si kare bés naka moom mii di Alaaji Diop moom nga xam ne si boppam jëloon na kàddu nag rafetlu bu baax a baax muy jéego nga xam ne njiite réew mi am na ko dugal ko foofu noonu si biir Banjul pour jéem a yeesalaat Banjul rafetaay bi nga xam ne moom la xamoon Banjul démb gannaaw bu loolu weesu naka moom continué di leeral mu ne na nañu fas yéene pour gis ne dina jéem a bootu baax a baax si gannaaw muy njiiti réew a xamee si National People's Party pour nga muy sànni kàtta ñu war a mën a am incha muy 2021 présidential gis ne Adama Barrow dafay war a continué pour nekk njiiti réew yi Gambia. Mouhamed Ndaw ak Fatoumata Touma Ndiaye ñoom ñi naka yëkkati ne seen i kàddu naka rafetlu baax a baax muy jéego yi nga xam ne. président Adama Barrow def na ko pour jéem a yeesalaat naka mu ñoom fu ñu dali dëkkee mu nekk Banjul South ak tama Banjul Central gannaaw ba loo weesoo ba léegi muy Mohamed xam ne si boppam nag député la moom a baax muy ab mbégteem ak kontaanteem ndégte mu ne njiiti réew nga xam ne si boppam nag rafetlu na ko nag moom nga xam ne moo jiite nag muy tudd boobu nga xam ne moom na dali jiite si jamono ji nii mu ne taxawaay bi nag nekk na taxawaay bi nga xam ne Banjul dañ ko yàkkamti woon démb liggéey bi nga def gis nañ ko te kontaan nañ si te bi nga toogee EES waxoon nga ko ne loolu mooy sa number one priority pour Banjul nu moo demee kanam ak nu moo ceeñee gis nañ fii ay décades yoo xam ne Banjul sin yoon yi ak sin sewage bi drainage bi dafa amoon problème géej nañ fi am yoon yu baax depuis 1992 élections bu fi Saa Dawda liggéeyee sin yoon yi nga ñëw liggéey lu ëpp loolu kon bàyyi nga fi legacy bu mag a mag gannaaw bu lu weesoo ba léegi muy Fatoumata Ndiaye moom nga xam ne si boppam naka na naka muy ab gox foon na si biir Banjul si pencum réew mi moom tam yëkkati na kàddu naka jéem a rafetlu baax a baax muy jéego bu nga xam ne njiiti réew mi am na ko pour yeesalaat muy Banjul. di ko wax ne tam jërëjëf si lim defagum du ma wax lim def de waaye lim defagum si Banjul parce que loo def am na li des waaye liñ gisagum dal na xel. li ma ko ñaan tey ministre bi toog suma boor ministre of finance mi yore xaalis bi xaalis bi fuñ koo approuvé mooy fi maa toog su eboon na ko fa isi te dinaa ko xeex ñu approuve ko ministre bi sampatam mu ngi nii toog te li ma leen naa ñaax mooy youth center laa bugga pour Banjul pour youth si di fa jànga di fa study di fa am fu ñoo dem pour ñu won leen ay métier gannaaw ba la weesoo moom si kàddu moom nga xam ne moo nekk njiite réew mi di président Adama Barrow moom rafetlu na baax a baax muy jéego bi nga xam ne waaye Banjul ñëw neen pour yëkkatiwaat nag seen i cofeel jëmal ko si moom mi di njiite réew mi ak nguuram gi si yenn si naataange yi nga xam ne ko fas na indi pour gis ne Banjul kenn dem mu dal di des gannaaw. mu ne nag moom si bopp nag am na yéene ne Banjul naka lépp lu nga xam ne moom la fa liggéey dinañ ko liggéey suñu mu gën gaawee rawatina sax muy si li nga xam ne moo nekk si intérêt réew mi. dañu war xaar suñu tànki pour liggéey Banjul nit nag soo nekkee si mbir ñaari yëf daf laa topp si ñaari yëf yooyu am na buy nekk sa kanam am na bu nekk sa ganaaw soo nekkee si yëf xamal ne dee moo si sa kanam waaye gàcce moo nekk sa gannaaw ñun dañ bëgg a bàyyi fi legacy yoo xam ne place bi dafay jeex waaye liggéey bi du jeex. sa jeef bi boobu du jeex soo dee sa du jeex kon su nekkoon su ma liggéey yëpp liggéey Banjul rek la amoon neex na. moom nag wane na ne am na naka muy mbégte yu bëri nga xam ne si boppam nag fas na éne pour gis ne dinañ ko jéem a ñëw pour jéem koo wisaare ndaxte muy jóori mu amee wàllum jënd ak njaay jóori mu amee wàllum dépasse jóori mu amee wàllum napp gi ak jóori mu nga xam ne si boppam nag muy amee na yeneen foto yu bërëb yi nekk fii si biir réew mi fas nañ éne pour gis ne dinañ jéem a yëkkati bu baax a baax lépp li war a mun a natal Banjul ndaxte Banjul moo nekk capitale réew mi li na lu ko waraloon mooy ñi nga xam ñu dalee dëkkee foofu na si biir Banjul ñoo demoon naka nemmeeku ku nga xam ne moo nekk jiiti réew mi di his excellence di président Adama Barrow si màkkanam bu nekk foofu na si biir Banjul mu nekk démb di talaata. gannaaw loolu weesoo ba léegi si xibaar yi muy ministre of finance and economic affairs muy jur mu amee wàllum dépasse fi si biir réew yi Gambie ak tam wàllum koppaari réew yi Gambie moom nag si boppam na ñoo woote woon nag muy taskati xibaar yi naka seen makkaan bu nekk foofu na si biir tundi Banjul pour jëme naa leeral bu baax a baax lan moo nekk ab yéene ak taxawaay bu nga xam ne moom leen fas ene pour gis ne dañ ko jëma ñoo ko fësal pour askan ñu war a mun a xam bu baax a baax lan moo nekkaale jéego bu ñu war a mun a gis naka muy wàllum liggéeykaay yu nekk fii si biir réew mi ni ñu koy war a mun a nekk di ko doxale naka lii nañu ko dal yëkkati nag si seen wàllum dépasse moo nekk international monetary fund muy IMF nekk koppar bi nga xam ne moo dalee béy ko si bitim réew ñu war a mun a yëkkati yi façon yi ab jàngat li na mu ngi xew démb di talaata ñoom nag wax nañ taskati xibaar yi ne ñoom nag defoon nañ lu gën a xamee si staff monitoring programme maanaam mu nekk muy liggéeykat yi ni ñoo war a nekk di leen gestoo ñu gis ne seen liggéey ndax mu ngi dali ànd ak taxawaay ak jéego bi nga xam ne moom moo tax ñu jëlee si yooyu façon liggéeykaay ñu ne wane woon ne ni Gambie naka si atum 2019 lu ngeen a xamee si staff monitoring programme implementation maanaam mu nekk daaw ni ñoo war a nekk di gestoo nga xam ne ñoo war a nekk liggéey si boobu bërëb liggéeykaay ndax seen liggéey mu ngi dem suñu war a nekk di demee ndax la moo nekk li nga xam ne moo ko war a nekk di ko ñu loo moo tax nag si gannaaw Gambia ñu sàkk woon lu war a toll si ñetti at nga xam ne dañoo war a baaxoo di war a nekk di gestu ñu mun a xam ne que liggéey bi nu muy war a mun a nekk di demee gannaaw loolu amee na ñu yëkkati woon ak ab yenn sàkkute bu nga xam ne sàkku woon nañ ko jëmale ko si international monetary fund ngir ñu war a mun a yëkkati nag ab koppar bu nga xam ne si ñetti at Gambie dañ ko war a mun a nekk di ko jëfandikoo si biir loolu nag ko ngeen a xamee si Jaroslav muy ko Koret moom nga xam ne moo dali jiite muy head of mission bu IMF fii si biir réewi Gambia wone na ne Gambie nag préparé neen pour gis ne dinañ jëm a liggéey liggéey bu rafet si lépp lu war a nekk di yokku taxawaayu liggéey ak jokkutee liggéey nga xam ne Gambia fas nañ ene pour war ko mën am nag loo moo taxoon si atum 2019 muy daaw ñu sàkk woon pour am lu gën a xam ne si staff monitor programme mu ne kon nag lii nekk na nag mbir bi nga xam ne dina war a mun a yaxanal bu baax a baax muy liggéey liggéeykaay spéci bi réewi Gambia te dina war am bu baax a baax muy ab yenn yokkute yi nga xam ne léegoo léegi da ko war a mun a gis ne dafaa war a mun a yokk si yooyu façon taxawaay mu ne kon nag ñaari weer si kanam dina war a mun a yokk bu baax a baax muy yenn si ab koppar nga xam ne dañoo war a mun a nekk di def pour gis naka liggéey bi mu gën a mun a nekk di yomba mu ne suñ fàttale ko si gannaaw nekkoon ab jéego yi nga xam ne si boppam nekk réew mi waxoon na ne dina war a mun a yokk baax a baax muy lépp lu nga xam ne mooy am-am ak lépp lu nga xam ne mooy dund bu nguuru réewi Gambia nekkoon di dundee si atum 2019. mu ne suñu fàttale ko nag si gannaaw GDP maanaam mu nekk yenn si ab am am yu nga xam ne réew mi am na ko si 2019 muy daaw amoon na ko muy yokkute bu nga xam ne daanaka yokk woon na fa si si téeméer bu nekk juróom-benn maanaam mu nekk 6 pour cent te mu ne loolu nag nekk na lu nga xam ne li ko gënoon a tax ba mu gënoon a nekk di wàññeeku moo nekk muy ñi nga xam ne ñoo nekkoon ñu ñoo waroon a agsi fii si biir réewi Gambia ñu xamee gaa si touriste moo gënoon a wàññeeku depuis si weeru novembre 2019. te nag mu ne lii nag li ko gënoon a waral moo nekk pileen bu gën a xamee si Thomas Cook mu nekk pileen bi nga xam ne moo laan baaxoo di béy ko foo ne si biir réewi Angleterre ak si fii ni si biir réewi Gambia ñu bëri nag nekku ne ñu nga xam ne pileen boobu moo leen laan baaxoo di leen indi rax si dool itam muy wàññeeku wàññeeku mbéyteef bi nga xam ne askan bi ñu ngi ko daan baaxoo di ko béy nag loolu mu nekkoon yokkute bi nga xam ne dafa baaxoo di am si fam na kon comme réewi Gambia mu ne kon naka muy bunti kay nguur gi ñu amee wàllum mbéy bi muy ministre of agriculture FAO e muy mbootaay bu amee wàllum mbéy te si àdduna bi yëpp ànd sax si seen yéene mbootaay ñoom préparé nañ pour gis ne dina jéem a seet lu mu bone bone lan moo taxaw bi wàllum mbéy mu daan woon baax a baax daaw niñ ko war a mun a yokkee nga xam ne lu mu bone bone ko déwén ab jàmm dinañ gis ne mbéyteef dafaa gën a mun a nekk di yokku mu ne suñu bàyyi nag si gannaaw nag am na nag ab gestu bu nga xam ne defoon nañ ko si fànn si yenn bor nga xam ne Gambie nag mu ko amoon nag si wàllum yokkute bi daanaka su nekkee téeméer la woon juróom-ñetti fukki ba juróom-ñaar bi yëpp dafa nekkoon lu nga xam ne bor lañ koy war a mun a nekk di ko wootee te mu ne loolu nag moo nekkoon si atum 2018 maanaam mu nekk ñaari at si gannaaw mu ne ba léegi nag si 2019 daanaka nag wàññeeku na ba dem téeméer bu nekk juróom-ñetti fukk ak benn muy 81 percent te mu ne nag suñu bàyyee xel bu baax a baax si atum 2020 si budget bi maanaam mu nekk ab sàkkote bu nga xam ne wane ne ne Gambie loolu moo war a nekk di dépassé nguur gi am na nag yokkute bu nga xam ne gëm na ne dina war a mën a yokk si kanam tuuti li yëpp lu koy waral moo nekk ñàkkoon a gestu bu nga xam ne la ma war a nekk di ajoo mu ne kon nag mu ngi rafetlu bu baax a baax muy jéego bu nga xam ne nguuru réewi Gambie am na ko pour gis ne dina jéem a yeesal wàllum liggéey nguur nu ma war a mun a nekk di jekkee ni ñoo war a mun a lënkalante askan bi ak mu liggéey liggéeykaay nguur ñu gis ne dafa gën a nekk di yaatu te mu ne loolu naka ñu bëri gisal nañ si seen i bopp mooy TRRC bu nga xam ne jamono ji mu ngi nekk di dem ak tam ñi nga xam ne ñoo nekk muy jur mu amee wàllum jigéen ñi ni ko dal di ko sosee jaane commission of inquiry maanaam mu nekk ñi nga xam ne ñoo doon ges na ko muy am ami yaa jëme si wàllum koppar ak ay ñoñam ak nu ñoo war a mun a nekk ni xeexee wàllum corruption maanaam mu nekk njuuj njaaj ak tappale si wàllum koppar réewi Gambia ak lépp nga xam ne mooy rekk aju si wàllum human trafficking maanaam jëlee fi doomu aadama yóbbu ko si bitim réew te fekk du ànd ak gis-gisi loi gannaaw bu loolu weesoo mu nekk Mamour Ndiaye nekk jële mu amee wàllum dépasse fii si biir réewi Gambia gërëm na bu baax a baax muy képp ku nga xam ne nekk na Gambia gannaaw bi nga xam ne ñoo nga nga taxaw si sa wet pour nga gis ne jëm kanami Gambia yoota nga war fi mën a gis sa boppa mu ne kon nag lii nekk na lu nga xam ne lu métti woon na si ab jamono si gannaaw ba ñu bëri nag amoon na ab nasax nasax si fan na liggéey wala mu ne yaakaar ne jamono ji naka taxawaay bii nii nekk na taxawaay bi nga xam ne moom ne rafetlu na ko bu baax a baax mu ne dëgg la international monetary fund muy bii mbootaay ñu ngi yëngu si lu war a toll si téeméeri réew juróom-ñeneen fukki réew ak juróom-ñeent te ñu ne rew yooyu yëpp dañoo baaxoo di gis ne dinañ baaxoo di yokk nag wàllum am ami koppar si yooyu réew yokk bu baax a baax muy koppar nu muy war a nekk di dalee ñu ngi ko war a mun a yaxanale pour askan war ko mun a dal ko jëriñoo ni ñoo war a mun a nekk di yombale wàllum jënd ak ak ni ñoo war a mun a yokkale bu baax a mu wàllum liggéey ndeg liggéey bokk na si ponk yi nga xam ne mooy war a tax pour koom-koom gën a mun a nekk di sax si boobu réew yokkute tam di gën a mun a sax bu baax a baax si askan bi ñu ne kon nag ndaje bi ni ñu ko woote woon mu nekk liggéey liggéeykaay nguur gi ñu amee wàllum dépasse ñu xamal ne si ministry of finance gannaaw bu loo weesoo ba léegi si xibaar yi muy bunti liggéeykaay nguur gi ñu amee wàllum dema dikk tubaab yi ak tamit wàllum aada ak cosaan ñu xamee gaay si ministry of tourism and culture jiite na ko di Amat NK Bah moom si boppam nag gannaaw nga xam ne jeexaloo na ko wër bu mu na wër nag muy tundi réew yi Gambia amoon na nag kàddu bi nga xam ne fësaloo na ko si wàllum wéykat ak ñi nga xam ne ñoo fas enépal gis ne dañoo war a mun a nekk di bind si wàllum aada ak tam si wàllum cosaan moom nag wane na ni depuis si atum 2017 maanaam mu nekk ñetti at si gannaaw gannaaw bi nga xam ne si boppam naka jëloon ne nguur gi si loxo Yaya Jammeh mu ne naka nguuri président Adama Barrow amoon na yéene bu baax a baax pour gis ne dinañ jël alal lu bëri war ko war a mun a nekk di ko dépassé bunti woy si bunti aada ak tam si bunti cosaan rawatina sax muy ndaw yi war mun a amal seen bopp koppar bi nga xam ne ko war a mun a nekk di ko tàmbalee. mu ne suñ fàttale ko nag si gannaaw amoon na nag jéego bu nga xam ne nag amoon nañ ko pour gis ne dinañ jéem a indi lu ngeen a xam ne si National Tourism and Culture Fund maanaam mu nekk ab koppareekaay bi nga xam ne si boppam ne koo dal di ko tegee boor nga xam ne képp ku nga xam ne am na yéene pour war a mën a ñëw di gestu mbaa nga war a ñëw pour ubbi sa ab liggéey si wàllum dema ko tubaab bi mbaa sax si wàllum aada ak cosaan nga war a mun a dem nag sàkku si ab koppar soo ko sàkkoo nga war a mun a am ne war a nekk di tàmbalee sa yooyu façon liggéey mu ne nag loolu nekk na lu nga xam ne si koppar nag amee na ab boor bu nga xam ne mu fa dal di nekkee des nag si képp ku nga xam ne am nga éene pour war a mun a dugg si wàllum wóoy te fekk mu leer la ne kam mun nga ko waaye nag commencement si boppam moo la la xaw a dellu gannaaw nga war a mun a dem naka sàkko pour war a mun a am si boobu façon koppar mu ne ñaareel bi tam ku nga xam ne dafay baaxoo di bugg a nekk di bind si wàllum gestu te gestu boobu si boppam mu nekk gestu bu nga xam dafa xaw a lëkkalante ak wàllum ak cosaan mu ne loolu si boppam naka ñooñu mun nañu war a mun a dem nekk jëfandikoo si yooyu façon mbir mu ne suñu fàttale ko si gannaaw ndaw yi rawatina sax muy woykat yi danaan baaxoo di jooytu ne nguuru réewi Gambia deful lu doy luy war a mun a tax pour ñoom woykat yi ñu mën a gis seen bopp bu baax a baax si doxalin ak am ami wàllu musique fii si biir réew mi. mu ne loolu nekk na lu nga xam ne yu bëri nag ñu ngi baaxoo di ko wax waaye nag jamono ji nag loolu nekk na lu nga xam ne mu ngi nekk si ndawi yi ñoom seen wàllum kanam mu ne kon mu ngi jéem a ñaax bu baax a baax mu ndaw yi ñu fas yéene di jéem a yóotu bu baax a baax si fànn muy ama njula ndax mu ne jamono yi lu mu bone boni ñaari millions koppar réewi Gambie tege nañ ko boor pour ñu gis ne dañ koy war a mun a nekk di ko jëfandikoo si yooyu façon mbir mu ne rax si dolli itam na ne si ñaari at yi nga xam ne moom lañ daal di weesu nii rek am nañ lu bëri lu nga xam ne mun nañ koo daal di ko dépasse su dema di ko tubaab bi su wàllum aada ak cosaan ak tam su wàllum aar. mu ne kon su nekkee loolu nag dem na bi nga xam ne su boppam nag jeex na bi nga ko war a mun a séddale suñu war a nekk di demee dina war a mun a ñaax bu baax a baax muy yooyu façon gi buntu ñu war a mun a continuer ji ma nekk di fulal lépp lu nga xam ne moo nekk taxawaay ak lépp lu nga xam ne moo nekk yokkute bu nga xam ne mooy war a mun a yóbbu si façon fan na mu ne moom nag am na mbégte bu baax a baax gannaaw bu nga xam ne gis na ay junne junne doomi aadama demoon na si kiw city nekk foo na si biir Bijilo Independence Stadium bu nekk foo na si biir Bakaw ak yeneen béréb yi muy ama poyekaay ñu gis ne dañoo war a ñu naka jàppale si yeneen doomi réewi Gambia ñu nga xam ne ñu nga nekk di dugal seen loxo si fànna muy woy mu ne kon nag lii moo daldi wane ne wàllum woy si boppam mu ngi daldi yokku ndeg askan bi moomale ne seen bopp lan moo nekk njëriñu woy fii si biir réewi Gambia mu ne kon nag mu ngi jëm a ñaax bu baax a baax mu ndawi ñu fas yéene pour war a mun a continuer pour am naka furla si lu ñoo war a nekk di def ndeg nguur gi préparé na pour gis ne dina war a jël koppar bu bëri war ko war a mun a dépasse si façon yéene gannaaw bu la weesoo ba léegi si xibaar yi muy ab mbootaay bi ngeen a xamee si Three Years Jotna Movement maanaam bu nekkoon ab mbootaay bi nga xam ne si boppam ñoo woote woon ne ku nga xam ne moo nekk njiiti réew mi di président Adama Barrow naka gannaaw bu mu noonu dali campagne waxoon na ne ñetti at moo dali toog moom mu ko àndale woon ak coalition members yi mu nekk parti bi nga xam ne ñoo daloon a mun a xëccoo moo nekk Yaya Jammeh ak parti bu ngeen doon xamee si GDC mu nekkoon muy parti Mama loolu nag tax na ba ñoom nag si bopp na ñu ne gannaaw bi nga ne si bopp nag muy fukki fan ak juróom-ñeent si weeri at bii nii moo waroon a tombe ñetti at gannaaw bi nga xam ne Barrow nekk na njiiti réew yi Gambia ñu ne kon na dalee wàcc nag loolu taxoon nañu amoon si wàllum doxum ñaxtu mu dem ba mujjee si anam bu nga xam ne que réew mi demul woon ba daldi ko refelu nag mu amoon ñu nga xam ne jàppoon na leen ñu war a toll si juróom nit ñi nga xam ñoo nekk ñoom seen i ay njiit loolu tax na nag bii moo nekk ñetteelu yoon bu nga xam ne ñoom nag si wàllum béel maanaam sàkku bu nga xam ne moom la ñoo war a mën a sàkku ne pour néegi attekaay bi bàyyi leen ñu war a dem nag ñibbi seen i kër ba saa yu nga xam ne su boppam ne néegi attekaay bi soxla na leen ñu war a jéego seen kër yi dem dénk yooyu atte yi nga xam ne dañ ko war a defee si high court bi nekk foofu si biir Banjul loolu tax na ba nag si boppam naka démba mu nekkoon bés bu nga xam ne lan la war a mun a am li nga xam ne mooy que si boobu façon biir waana dem ko aj ba incha allahu rabi muy bési ajuma fukki fan ak benn si weeri février fukki waxtu ak benn si suba si si high court bi nekk foo noonu si biir Banjul ñu ne si kër bés bi nag ñi nga xam ne ñoo nekk three jot na naka seen ay yeneen njiit ñoom nag ñi xam ne ñoo war a ñëw pour leeral leen mën a mu nekk seen looyey ñoo war a ñëw pour war mun a xëccoo ak muy nguuru réewi Gambie ñi nga xam ñoo ñëw pour jëm na naa teewal si néegi attekaay bi ñu war mun a nekk di xëccoo na pour jëm na naa laaj si lan la ñu war a dal sukkandiku ba tax na muy ñoom ñi nga xam ne ñoo war a toll si juróom-ñetti nit la moo tax nangu leen jox biil ba ñu dal di war a mën a aj boobu façon atte nag si attekaay bu nga xam ne moo nekk foo doon si biir Banjul te ku ko dal di jiite moo nekk justice Aminata Sakho Cissé ba léegi rek si xibaar yi fu ñu fas yéene ànd ak yéen ba léegi muy ab benn mbootaay bi ngeen a xamee si United Nations Environment Programme maanaam mu nekk am mbootaay bi nga xam ne si màkkaan bu mag baa nga nekk si bitim réew nag jaarale ko si ab yëngu-yëngu bu ñu gën a xamee si climate change and early warming system project maanaam ñoo war a mun a nekk di jàngalee nit ñi ñoo war a mun a bàyyee nag xel si suñu wàllum dëkkuwaay ak ñoo war a nekk di xamalee ni ñi lan moo nekk mbir bi nga xam ne ëllëg si biir mun na moo yëkkati fitna mbaa mun na moo yàqu bu baax a baax suñu wàllum dëkkuwaay ñoom la ñoo jëloon nag bu baax si yéen ab aleel jënde ko yéen a transmitter maanaam mu nekk ab bagage nga xam ne que rajo daf koy baaxoo di ko dundee pour war a mën a gis nag askan bi dina war a déglu lu war a toll si juróom benn community radios yu nekk fii si biir réew yi Gambie maanaam mu nekk rajo askan bi li nag wane ne ne bii façon jubluwaay nag nekk na jubluwaay bi nga xam ne ne nag muy boobu mbootaay def nañ ko pour war a mën a jàppale bu baax a baax muy rajo yi nii ñu war mun mën a ñëw xamal askan bi lan moo nekk dayoo bu nga xam ne su nekk dënn bee xool koo mun a nekk di ko nasaxal nu ma war a mun a nasaxalee suñu wàllum dëkkuwaay ak ñu ko war a mun a aaree nga xam ne askan bi war ko war a mun a nekk di ko jëriñoo loolu moo tax nag si kër bés a wane ne ne jël leen li nga xam ne mooy que RF cable maanaam mu nekk woyaay yu war a mun a béy ko nekk si boobu machine dem ba si kaw jaww ji muy si antene bi pour nit ñi war koo mun a dal di ko jëfandikoo mixer headphone microphone ak internet cable su nga xam ne dina war a tax pour nit ki war a mun a nekk di jëfandikoo lépp li nga xam ne moo nekk ab wàllum bébétam si biir loolu nag ku nga xam ne moo nekk madame Thiaré Sani nekk monitoring and evaluation officer bu climate change and early warning system bi fii si biir réewi Gambia wane na ni bii moo nekk ñaareelu jubluwaay bu nga xam ne que amaale nañ ko pour ñu gis ne dina war a mun a nekk di dimbale yi rajo war a toll si fukki rajo ak ñeenti ñi nga xam ne askan bi ñu leen dale moom mu nekk muy fourteen community radio stations mu ne kon naka ñoom fas nañ Enable gis na naka dineen dale continue bu baax a muy bii façon yi jéegoo nekk te jéegoo suñ demee ba di a mun a dimbale rajo askan bi seen i liggéey ak muy xam-xam bu nit ñi di war a mun a jàngee si yooyu façon rajo dina nekk si anam bu nga xam ne mooy gën a yomb ñu war a dem pour kër bu nekk war a mun a xamal bu baax a baax dayoo ak ñàkk a ànd bu nga xam ne askan bi mun nañ koo ñàkk ànd si yooyu yéenee si biir loolu ku ngeen a xam xamee si Youssoufa Bojang nekk président maanaam njiit bi si network of community radios di Gambia wane na ne seen mbootaay bi nag dañ ko daldi sos na mu nekk mbootaay bi nga xam ne mooy war a mun a daldi boot muy bépp rajo bu station bu fii si biir réew mi te fekk mu nekk rajo askan bi te mu ne lu ko waral nag mooy ñu gis ne dinañ war a nekk di xool lan moo nekk mooy njëriñu rajo yi lan moo nekk seen taxawaay nu ñu war a mun a yokkee muy xam-xam bu nga xam ne que muy liggéeykat yi yooyu rajo dinañ ko war a mun a am ñoo war a mën a nekk di waxtaanee que nguur gi di leen jéem a xamal ne lu mu bone boni war ñoo jël ab koppar war koo mën a dimbale rajo askan bi ndekte dañ leen tere ne waru ñoo nekk di jëfandikoo muy façon advertisement comme yeneen rajo private yi ko war a nekk di ko defee mu ne rax su dool itam ni war a mën a nekk di xamalante askan bi pour lépp lu nga xam ne mooy yéene ak jéego bu nga xam ne moo koy war a taxa di ko jóg si biir loolu nag muy Moussa Amol Niassi nekk Buyam Community Radio Station seen board chairman bi moom wane na ni ndimbal bi nekk na ndimbal bi nga xam ne ndimbal bi am solo la ndete ñoom ne yàgg nañoo nekk di jooytu bu baax a baax muy transmitter bi war a mun a tax pour ñoom ñu war a mun a nekk di liggéey mu ne moom nag gërëm na bu baax a baax mooy bii mbootaay rawatina sax muy mbootaay bi nga xam ne moo nekk muy mbootaay rajo station yi yu nekk muy rajo askan bi de mu ne suñ fàttale ko si gannaaw rajo askan bi nag amul doole te nag amul ñu war a nekk di jëndee yëpp façon bagaas nag dafa seet lool waaye nag lii ñëw na si waxtu bi nga xam ne ñëw na si ñu nga ne ñoo koy gën a mën a nekk di ko soxla si kare bi si nga xam ne moo nekk Bakary ne moo nekk PRO bu community radio station si ne si boppam moom nekk na ambassadeur bu nga xam ne moo dali toogal naka si boobu kër béréb ñoom yëkkati neen bu baax a baax li nga xam ne moo nekk seen taxawaay ak seen i mbégte ko si ñi nga xam ne nag kër bi su yëkkati woon neen bii façon ndimbal ñëw ba léegi nag mu yeneen rajo yi nga xam ne ñoo daldi war a mën a am nag bii façon ndimbal bokk na si mu nekk Kerewan community radio station bu nekk si biir North Bank Region muy site bi tundi Kerewan Jaara Soma Bansang ak Brikama ba rajo yi yëpp dina war a am ndimbal nga xam ne moo war a béy ko si wàllum transmitter ak bagage su nga xam ne moo war a tas seen liggéey dem suñu war a mën a nekk di jekkee ba léegi rek si xibaar yi fu ñoo fas yéene ànd ak yéen ba léegi muy tund bu ñu gën a xamee si jaara nekk si biir muy Lower River Region maanaam mu nekk si biir tundi Soma ñoom nag si boppam nag ñoo am nag ab yokkute bu nga xam si boppam dimbale ne leen ko rawatina sax dëkk bu ñu gën a xamee si Kanikunda seen jàngekaay bu ñu gën a xamee si Kanikunda Lower Basic School ñu ne boobu jàngalekaay nag nekk na jàngalekaay bu nga xam ne nag seen yenn classroom yi danga ko laa mën a baaxoo di ko jëfandikoo nag waaye nag amun a ab tardement bu nga xam ne la daloon ni am nete boobu bëri bi jàngalekaay dafa nekkoon lu nga xam ne dafa xaw na yàqo ba ndaw yi munuñ koo na nekk di ko jëfandikoo loo taxoon na ba ñu nga xam ne ñoo nekk di jàngale si boobu jàngekaay ñu ne kon nañ jéem a xaaj nag muy lim bone ne ba mu ab lim buy ñëw si suba si beneen lim buy war a ñëw si ngoon si ñu xamee ko si morning ak afternoon shift loolu nag taxoon na ba mu amoon ab benn mbootaay bi nga xam ne léegi nag xamee si Friends of Sankuya ñu yëkkati woon nag ab koppar bu war a toll si ñeenti téeméeri junne koppar réewi Gambia liggéeyaatee ko mu ñeenti bërëb bi jàngekaay yu ngeen a xamee si foo classroom block yi nga xam ne moo war a tax pour ñoom ñi ñu war ko war a mun a nekk di ko jëfandikoo si biir loolu nag ku ngeen a xamee si Kemeh Sène Fati nekk mu headmaster bu Kanekunda Lower Basic School moom wane na ni am na mbégte bu baax a baax mu ne képp ku nga xam ne naka ñëw na pour war a mun a gis naka taxawaay bu nga xam ne Sankuya Foundation bi yëkkati nañ ko pour ko war a mun a nekk di ko dugal si boobu jàngaleekaay mu ne nekk na lu nga xam ne de amoon na ko mbégte bu baax a baax mu ne suñu bàyyee xel boobu jàngalekaay rek si boppam nag mu ñeenti classroom blog yi mënuñ ko ne jëfandikoo lu war a toll si ñeenti at dem ba si juróomi at si gannaaw te li yëpp nekk na lu nga xam ne taxoon na ba wàllum jàng mu wétti woon bu baax a baax si ndaw yi nga xam ne daal di dëkkee si boobu dëkkuwaay mu ne waa nag jamono yi nag ñoom mun nañoo puugaroo ne kan ko ndaa lowa bi sa school nag seen jàngekaay bi nii dina war a mun a ñëwaat nag di mattale waat mu yéene bu nga xam ne amoon nañ ko pour ndaw yi war a mun a nekk di jàng suñu gën a dalli yaatoo ni muy war a gën a nekk di yombee ndegte jàngekaay bi si boppam nekk na jàngekaay bi nga xam ne jamono ji nii am na comme yeneen jàngekaay si wàllum yaatuwaay si wàllum classe yi fu ñoo war a nekk di toog yooyu jàngekaay di am na ko gannaaw bu loolu weesoo ba léegi si kàddu moom mu nekk Lamin Seydi Kane nekk chairman bu Kanekunda Lower Basic School Management Committee moom wane na ni ñoom nag seen mbootaay nag ñu ngi fas ne pour continuer waat pour jëm a sàkk waat nag pour ndimbal war a mun a am nag pour ñu jëm a liggéeyaat muy seen ab mbaar bu nga xam ne si boppam moo nekk si biir néegi te mbaar yooyu si boppam nag daanaka nag am na lu nga xam ne yàqu na te am na nu moo demee dina war a mun a am nag yooyu façon ngi jafe mu ne ñu ngi jëm a yeesalaat bu baax a baax nga xam ne moo nekk seen sàkku pour ñu sàkkuwaat ñu seet ndax ñeneen dina mun a ñoo dimbale leen si yeneen façon ngi mbir moom mu nga xam ne moo fa toogale mooy regional education director bu region four moom wane na ne liggéeyaat bi nekk na liggéeyaat bi nga xam ne dina war a mun a dimbalewaat muy quality education maanaam mu nekk jàng si nu ma gën a nekk di sellee ak nu ma gën a mun a nekk di yombee ndax mun a ndaw bi su nekkee dem ne ba de war a bëgg a dal di jàng te fekk na fu muy jàng si boppam nag mu ngi xat te nag moom si boppam sax muntu jëfandikoo bu baax a baax muy ab yaatuwaayam dina tax muy jàngam dafa dal di sax waaye mu ne su nekkee ndaw bi mu ngi jàng si jàngikaay bi nga xam ne bu yaatu la bu féex la dina gën a am yéene pour yokk bu baax a baax li nga xam ne moo nekk muy kattanam pour gën a mën a nekk di jàng ndeg jàng si boppam nekk na lu nga xam ne ak xam na pour war ko mën a nekk di def jamono ji fii si biir réewi Gambia kon askan wi li moo nekk lu ñu amaloon si xibaar yi di leen jaajëfal bu baax a baax si seetaan mag yéen ñi nga xam ne yéen a ko doon déglu si Q Radio muy 103 point 3 gu loon béy ko fii si biir tundi Kereva Avenue nekk fii si biir réewi Gambia ba incha allahu rabi ëllëg ab jàmm di am alxames ñu indi leen yeneen xibaar ngeen àddoon si ak Birame S Diop jërë ngeen jëf.